Waouh, waouh, waouh, waouh troisième combat de la soirée mi le noonu de Tchadou Diakhaay ak Issa Pouy, bu yëmbal Issa Pouy, bu marin à Tchadou Diakhaay Tchadou Diakhaay face à Issa Pouye troisième combat de la soirée c'est le dimanche 17 juillet 2022 ñoo au stade Diop le promoteur Ibou à la tête de la structure Petite Production organisée. troisième combat de la soirée Issa Pouy, face à Tchadou Diakhaay Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay arbitre bi sifflé na génn na seen diggante Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay combat bi dem na arbitre bi sifflé na génn na face à Tchadou Diakhaay Waouh waaw Issa face à Tchadou Diakhaay Waouh waaw Waouh attention Il Pouy face à Tchadou Diakhaay Tchadou Diakhaay mon moo de Bobby, Issa Pouye bi ci waouh, waouh, du Jaxaay poulet ou baara attention attention Et ça te dooral ma le door Il s'appuie xëj ci de face à du Il s'appuie face à du Jaxaay Il s'appuie face à du Il s'appuie face à du Il s'appuie face à Tchadou Thiatou Troisième combat de la soirée aujourd'hui, dimanche 17 juillet 2022. Waouh, waouh, attention. Il s'appuie face à Thiatou attention. Il s'appuie numéro 2 pour moo ngemb pour le lu Moi, li moo ñu woon ginnaaw noonu Thiatou Diakhaye Il s'appuie pas à Tchadou Djahaï. Il s'appuie face à Tchadou Djahaï. Il s'appuie face à Tchadou Djahaï. Il s'appuie face à Tchadou Djahaï. face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à waaw waaw Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay ñëw Issa Pouye face à Thiatou Niakhaye Issa Pouye face à Thiatou Niakhaye waaw face à Thiatou Diakhaay le troisième combat de la soirée sama comme nous le savons, c'est le dimanche C'est le dimanche 17 juillet 2022 ñoo ngi au stadium Iba Mar Diop le promoteur Iboussène à la tête de la euh, de la structure Petite Production moo organisé waaw waaw nous Il s'appuie Pouye Thiatou Diakhaay nous nañu Thiatou Diakhaay am na ngemb Issa waouh. Waouh, waouh. waaw waaw waaw Il s'appuie Tchadou Diakhaay Il s'appuie face à Tchadou Diakhaay Il s'appuie face à du Diakhaay troisième combat de la soirée troisième combat de la soirée Waouh waouh attention on reprend notre joga combat Issa Pouye dafa naaj ci Issa moo blessé médecin yi Issa moo blessé foog mu dem ci médecin bi foog mu dem ci médecin bi Issa Pouye mi ngi noonu dafa blessé waaw waaw waaw waaw combat bi demaat na Issa moo demoon ci médecin bi ñëwaat na mi ngi jàkkaarloo ak Thiatou Diakhaye Thiatou Diakhaye le poulain de Mara ak Issa Pouye le poulain de

Il s'appuie face à Tchadou Troisième combat de la soirée aujourd'hui, dimanche 17 juillet 2022. On est au stade Ibama Diop, le promoteur. Sen à la tête de la structure petite Production organisée.

Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay waaw waaw waaw waaw Thiatou Diakhaay face à Issa mon frère ay jar jam ci taw bay waaw s'appuie face à du Diaraï. Il s'appuie face à Tchadou Diaraï. Il face à du Troisième combat de la soirée, combat bien commencé Yagnak. Et ça, attention, Djem Loko, Djem Loko, Tchahabal Légui, baaxul tànk bi mi ngi ca ginnaaw tànk bi mi ngi ca ginnaaw waaw waaw Issa Pouye face à Thiatou Diaray Issa Pouye face à Thiatou Diaray Issa Pouye face à Thiatou Diaray oh, waaw sama gars yi troisième combat de la soirée troisième combat de la soirée Issa Pouye face à Thiatou Diaray tey le dimanche comme ni ma ko dimanche 17 juillet 2022 nous de le promoteur. Iboussène à la tête de la structure. Petite production moi organisée. Waouh, waouh, c'est le dernière journée de la saison. Petite production, moi Pitagon, Sita Bungor, Akidi Tchadou Yara, Tchadou, Tchadou Rebas autant pour moi. Petit Moko Pitagonde, en collaboration avec LB Events. Attention, Waouh waaw ah combat bi mi ngi commencé yàgg de combat bi mi ngi commencé yàgg combat bi mi ngi commencé yàgg Waouh waaw Issa Pouye nàcc na Issa Pouye nàcc na mu dem ci médecin bi foog mu dem ci médecin bi ah deuxième mi-temps du combat deuxième mi-temps du troisième combat de la soirée Mon la arbitre bi di waaj a sifflé sible na Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay combat bi na de bëre nañu ba mi-temps bëre nañu ba mi-temps bëre nañu ba mi-temps bëre nañu ba mi-temps Issa Pouye face à Thiatou Diakhaay Issa Pouye face à na ko Issa Pouye na ko Issa Pouye na ko Mm. Issa Pouye Thiatou Diakhaay troisième combat de la soirée combat bi yàgg na combat bi tiré na en longueur combat bi tiré na en longueur combat bi yàgg na tiré na en longueur attention songle na ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw na ko léegi waaye Issa Pouye da cee génn Issa Pouye génn na ci waaw waaw Issa Pouye face à Béry bu Ndiaye ñoxo baay yàgg na yàgg na yàgg na combat bi yàgg na troisième combat bi yàgg ñu guddeel waay bu ñu guddeel Aja Pouye face à Thiatou waaw waaw combat dafa yàgg lool lool waaw waaw